depuis mars 2015 y a une logique donc euh, logique la logique de continuité de tout le logique de continuité peut-être que avec l'augmentation équipe 23 27 pour parer à toute éventualité mu avons aussi combat pour parmi les entraîneurs africains mais à part euh, Sima euh, amul ben journaliste bo xamné wax né il eh, ci benn benen aspect nak bo bu aussi eh, ci lu mu def euh, dama gis poste di gardien au milieu de terrain défenseur ba attaque euh, def ko doubler aspect aussi may surtout man le cas bi ma gëna titel touti moy mooy euh, Dia parce que ñëpp xam nañu aussi Boulaydia Dia lu mu représenter ci dispositif bu Aliou Cissé euh, nek na ci sun attaquant de pointe bo xamne ne moy titulaire bi euh mom mo gëna mëna jouer aussi avec Sadio Mané parce que day daw lu di libérer les espaces donc su fekkente né équipe am nee day tok quatre semaines on euh, nga permettre aussi de douter parce que ñëpp xam nañu club employeurs généralement dañuy faral di euh yok ci xarbi bi karaw. Noah Fadiga fum nek ni xalé bo boo dañ ko wara ñaanal parce qu'il est encore relativement jeune mais xolé bo xolé concurrence bi taw ci kanamam euh, tey ji le titulaire indiscutable à moins que mu blessé c'est Sabali Sabali sax day dem day day dem sax ben moment di jël côté gauche bi alors que domaine de prédilection am côté droit bi la bu taxawé côté droit ken du fa taxaw deuxièmement aussi temps yi gis nga né Aliou Cissé ci walum essayage yu muy def jël na ko melni euh, Crépin Diatta Crépin Diatta nak gaay yi yenn saa dañuy xawa a da koy tek latéral mais su nekkee face offensive Crépin Diatta day ñeu renforcer milieu terrain bi comme ça ñu yokko au milieu terrain ñu nekk ay 5. boy xol Cameroun bu 2002 ni la don fek Jérémy Njitap même bu mu nekkee Real de Madrid ni Krépin Diatta li koy Aliou Cissé utiliser non la doon footballé donc soy dem di dem Coupe d'Afrique baxna aussi du Aliou rek mo wout match amical équipe yu bëri wout nañu match amical mais wout match amical aussi di wout tagoto devant ton public sénégalais bëgg nañ ko comme ça ñu ñëw saafante ak sen équipe nationale le lendemain ñu jël risque bi nak mu ci bu ci nek moy joueur bu dugg ci terrain amul match amical surtout Sénégal amul dara da ngay ñëw di jouer de def sa kéemtulaay kattan pour impressionner son public pour impressionner son entraîneur pour mu def la titulaire donc risque bu ci surtout yaa ngi joué quoi xam ne qualifié Coupe d'Afrique mun nga ci gaañu aussi mun nga mun nga nangul ñooñu di aspect